rab feeb bu su leerulee ci seen bopp leneen bu leer seen bopp lu ñu leen dóoree ci élection yi xanaa leneen lañ ci mën a yokk mooy ñaanal leen yàlla meleen xolu muñ bu ci des nag mooy ñoom ñu nangu ànd ak ville de tabax Dakar liggéey Dakar sargal askanu Dakar foofu lañuy ñuy xaare état du Sénégal xaaruñu état du Sénégal feneen kon audience boobu waxoon naa ko ci campagne bi da koy biralaat suma responsabilité la du Barthélémy Dias mooy jóg dem seeti magam Macky Sall ñun xamante nañu bu baax a baax a baax waaw bu baax sax waaw wante maire de Dakar ba ma doon suma responsabilité la ma ma jóg sol suma ay dàll ci turu Dakar dem seeti président de la République du Sénégal ñëw ne lii la Dakar namm lii la Dakar soxla bi la Dakar di xaar ci yow mooy suma responsabilité te loolu dama ko fas euh, def parce que foofu la ma Dakar waas yi ak Dakar waay di xaare wax ngeen ci waxu organigramme de la ville de Dakar dama xam lu tànn lu ëpp douze personnes suma cabinet am na ay chargé de mission am na ay conseil technique am na ay conseil spéciaux ñu ngeen di gis suma ginnaaw ñii ñëpp c'est le cabinet de la ville de Dakar lu tax kenn waxul seen wax yenn est-ce que xam ngeen benn waay bu ñuy wooyee Omar Blondin Diop suma cabinet mas ngeen dëgg tur gi mi ngi ci cabinet bi mas ngeen dëgg ci cabinet bi ku ñuy wooyee Mamadou Ka mi ngi ci cabinet bi mas ngeen dëgg ci cabinet bi ku ñuy wooyee Khalil Diack mi ngi ci cabinet bi lu tax nag ñoom kenn waxul seen wax lu tax ñu bëgg a single Guy Marius Sagna ak capitaine Touré balaa may dee ñu ne ma waxu organigramme ñoom ñuy wax na ngeen dem xool yi seen organigramme ak ngeen xool seen ay décision parce que une chose est claire mooy présidence de la république organigramme bu fa nekk mënoo fa am presque trois cent ministres conseillers et conseillers techniques et chargés de mission mënul nekk nekku fa waaw kon nag ñoom su ñuy nekk ci seen maa tey ma nangul leen seen maa tey wante dañ ma may man ma mën a liggéey suma liggéey nu ma ko yoon santaane ma bëgg nag wax ci leer constitution du Sénégal waxuma waxu décret xam ngeen décret président moo koy signé kon nag man décret saxuma dama ne constitution du Sénégal di suñu alxuraan di suñu bible moom moo wax collectivité locale yi dañ leen baaxee libre administration kon nag à cet amul benn loi amul benn décret bu mën a ñëw tegu ci kaw loolu mënul nekk libre administration mooy man dama ne préfet may dëkk kenn Sénégal amul sañ-sañ ne ma balaa ngay tànn nit sa cabinet da ngay jaar ci man ma jox la autorisation du ma ko def tey du ma ko def suba amut président Macky Sall nuñ koo falee suffrage universel direct noonu lañ ma falee man suffrage universel direct man nekkoon naa fi député assemblée nationale du Sénégal président Macky Sall musul jaar assemblée nationale taxaw ne est-ce que man mën naa am conseil bii wala conseil bee yaa ngi wax waxu am soxna si kan mooy directeur de cabinet du président de la république man xaw ma ko wante lu ma leen mën a wax mooy lu loi bi wax. loi nee na kenn mënul nekk directeur de cabinet du président de la république te amoo benn diplôme universitaire fa laa yem ci wax ci kon nag loolu la loi bi wax bi wax man suma directeur de cabinet mi ngi nii titulaire de plusieurs masters ancien directeur de l'hôpital régional de Saint-Louis ancien directeur de l'hôpital Abbas Ndao ancien directeur de l'hôpital Albert Royer titulaire de diplôme universitaire waaw ñu ngi wax ci waxu capitaine Touré d'abord capitaine Touré d'abord tey dañ koy jaajëfee da ngeen tàccul ma capitaine Touré que capitaine Touré dañ ko naroon décorer tey Sénégal ñoom ba ñuy complot seen complot capitaine Touré su gëmuloon yàlla si dama ne capitaine Touré ay mbokkam mu ngi may dégg su gëmuloon yàlla peut-être tey dina dégg beneen grade wante nag su ko defoon tey Sénégal di ngeen dégg lu ëpp 14 morts capitaine Touré que Dieu vous garde et que man naa ko Guy Marius Sagna nag moom. tey Sénégal ci gàttal amatul syndicat balaa may dee ay syndicaliste di dugg ci lu ngeen xam ne seen yoon newu ci wante nag yàkkamtewuñu fi kenn waaw syndicaliste ngay taxaw ne dangay ngay représenter les de la ville de Dakar fii mairie de Dakar di ngeen gis nit buy liggéey am master cent quatre-vingt-dix mille francs yu bokk ndey ak baay du ko yóbbu këram Voici où les syndicalistes qui parlent pour le nom et le compte des travailleurs de la ville de Dakar doivent parler te bàyyi ji dugg ci lu ngeen xam ne seen yoon newu ci waaw ah. man bokkuma man man dama ne mbokk yi dama ne question bu ma posé parce que il faut qu'on se comprenne ngeen may ma rek yéen waa presse ab déglu rek s'il vous plaît sénégalais ñu ñuy déglu ab déglu ab déglu rek dinaa leen jox exemple parce que waxuma waxu conseiller technique en charge des affaires sociales et de la réinsertion parce que poste mais ci bureau municipal bi am na adjoint au maire de Dakar en charge de l'action sociale loolu bureau municipal la mais ci conseil municipal bi am na président commission action sociale waaw maintenant maire ba ma doon man kan moo may conseiller suma cabinet ci mbiru action sociale kan dama ne Guy Marie Sagna est nommé par le maire de Dakar comme conseiller technique en charge de l'action sociale il le restera il demeurera beneen bi ñu taxaw ne capitaine Touré capitaine Touré fan la nekkoon du gendarmerie fan la nekkoon ci gendarmerie du section des recherches lan lañ fay liggéey su nekk sécurité amoon na benn jigéen bu fi nekkoon décision moo nekk nii dama ne signé par madame le maire Soham El Wardini excusez-moi par monsieur Khalifa Sall maa ngi jégalu parce que dañu taf dañu taf tur pour ñu ñi bañ a gis article premier ñu ne diw boobu te muy jigéen nommé nañ ko conseillère aux affaires communales nouvellement engagée non dañu ne kooku ji euh, ne jigéen boobu. mu nekkoon mu nekkoon conseillère s'il vous plaît mu nekkoon conseillère aux affaires communales nouvellement engagée par contrat numéro tant tant tant bar VD mooy ville de Dakar du 22 novembre 2011 est nommée technique du maire de la ville de de la sécurité urbaine la préfet nekkoon fan la président nekkoon bañ koy jamono boobu bañ koy nawee ba tey mi ngi fayeeku eh, trésor tey ngeen taxaw man ma jël beneen décision su ma décision maa jël moom soxna si ba nga Khalifa Sall di di di dugal ci cabinet bi c'était le 6 décembre 2013 dañu de article premier moom jigéen googu conseillère aux affaires communal nouvellement engagé par contrat numéro temps barre ville de Dakar du 22 22 novembre 2011 est nommé conseiller technique du maire de la ville de Dakar chargé de la sécurité urbaine mi ngi ni man ma ñëw yoon may ma sañ-sañ ma beesalaat suma cabinet man ma jël décision du 21 avril 2022 ma ne contrat boobu dañ koy arrêté mooy jigéen boobu ma ne contrat boobu dama ko remplacer par capitaine Touré waaw loolu damay laajte damay laajte rek kana ci mën dara ñu ne ma dafa am benn waaye bu taxaw fële nekk xaw maay wax organique am koy xaar fii fii laa koy xaar dama ne ces gens sont membres du cabinet et ils resteront membres du cabinet dama ne ku mu neex jóg def lu man su ma jógee naa def lii leen neexee sax dites à qui de droit même de bloquer même les salaires au trésor je dirais à qui de droit de faire ce qu'il a à faire pour que les personnes qu'on contracté avec la ville de Dakar puissent honorer leurs engagements avec la ville de Dakar et la ville de Dakar puisse aussi honorer ses engagements avec ses personnes. am na leen lu mu ci bëgg a wax parce que nag lu ëpp tuuru dama ne lu ëpp tuuru te nag xeex su jotee ku xeexul doo gor doo doonu gor dama ne capitaine Touré. ngeen may ma rek dama ne capitaine Touré juddoo Sénégal yaroo Sénégal dëkk Sénégal ñu nekk ko moom moom du liggéey Sénégal fii dëppul kees jaayul suuf dëppkatu kees yi xam nañ leen jaaykatu suuf yi xam nañ leen sàccul sàcckat yi xam nañ leen nga taxaw nekk que moom du fi liggéey Sénégal ndax lan parce que da ngeen doon complot mu ne moom nangul dugal loxoom ci complot bi. comme na ngeen mbir bi ñi la demee dama décidé dëkk bi 1960 la amee indépendance président Senghor nekk président dem président Abdou Diouf ñëw dem président Abdoulaye Wade dem tey nag président Macky Sall la fi nekk on n'acceptera plus la violence le harcèlement et la discrimination exercée sur Guy Marius les centrales syndicales sont interpellées. Le maire de Dakar que je suis, je refuse à partir d'aujourd'hui de cotiser dans n'importe quelle centrale syndicale qui ne respecte pas aujourd'hui un minimum de décence. Et je refuse de reconnaître un quelconque responsable syndical qui confond pomme de terre et Angleterre. S'il y a des syndicalistes qui pensent que la position qui est la leur est une position de jouissance parce que ñun dëkk bi fi lañu juddoo fi lañu yaroo fi lañ xam nañ lépp xam nañ lépp man nag dama ne man bokkuma ci xeetu politiciens yi chantage ku ma woo ci jàmm ma fekk si la ci jàmm ku ma woo ci ay ma xam suma bopp ma te suma bopp et je marche vers l'essentiel je le dis et je le répète le bureau le bureau de l'organisation internationale du travail sera saisi par les conseils juridiques de la mairie de Dakar les conseils juridiques de la mairie de Dakar vont porter le combat à l'international contre la discrimination, le harcèlement et la violence dont, fait, dont font victimes Guy Marius Sagna et le capitaine Touré. C'est inadmissible. Ce sont des citoyens sénégalais. Ils jouissent de tous leurs droits civiques. Ils jouissent de toutes leurs compétences psychologiques. Ils ont le droit de travailler dans leur pays et pour leur pays. N'en déplaise à des personnes qui malheureusement sont en fin de carrière ou dans un, ou dans, désarroi. Donc je tiens à le dire Et je tiens à inviter la presse à traiter l'information sans aucune sensation et sans aucune passion.